parce que que euh, euh, euh, madame la ministre situation est fi fekk waxuma né fayuñu mais bu Covid nous pendant trois mois nous n'avons pas eu de versement pendant trois mois échéance la mais femme interpellée interpeller mëna la parce que fii la majeure partie des femmes yi ñuy jël financement c'est du du commerce c'est une zone transfrontalière lu ñuy jël des financements elles vont à Diaobé elles vont acheter des des marchandises ñu ñëw jaay dajaay donc ay jigéen jàmbaar nga jàkkaarloog ñii. bi ñu fi ñëwee aussi mutuelle des femmes de Kolda Amna, na yenn mbébét yu ñu wax ndax visité nañu chantier bi nga xam ne ñi ngi koy tabax ñi def extension ci mutuelle bi te mu doonoon chantier boo xam ne ci njëlbeen bi fim daf leen ci waroon jàppale bi pandémie bi ñëwé nak mu am tuuti encore. mais téréwul PCA bi waxna na accompagnement bi nga xamné ne FIMF mi ngi koy def mais joxna instruction légui directeur FIMF na xol en rapport ak mutuelle bi nuñ leen mën a dimbalee pour ngeen eggali chantier bi mu pare ndax bénéficiaires yi également mën a nekk dans de bonnes conditions déjà direction de la microfinance dinañ len djébal matériel euh, de bureau bo xamné ne dinañ mën a dolleeku ci aménager mutuel bi yenen doléance yi fi wax muy groupe yi ak muy moto yi yooyu yëpp dinañ xool nuñ ci gëna a taxawé bu baaxa baax. mutuel bi dañ ko créer depuis le 29 mars la juddu 2001 mais biñu ñuy samp mutuelle bi dañ ko sampoon pour jigéen yi seulement. Montagnone, elle a été créée par et pour les femmes de la région de Kolda. ci départ bi 525 euh, membres la ñu juróomi téeméer nit ak ñaar fukk ak juróom mais tey màgg nañu rabbil alamin ci juróom-ñaari ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar membre tey li a am mbégte mooy président de la république ci cadre jàppale ak nekk ci wetu acteurs économiques surtout ñu nekk ci wax secteur informel Nous nga xam ne dañu nekk ci petite activité yi na région naturelle u Casamance 115 millions 700 ci 115 millions 700 génne nañ ci lu 44 millions 600 jagleel ko acteurs yi nekk Kolda ñu ko xaaj ci ñaar fukki ñaar fukki million yoo xam ne mu ngi jëm ci mutuelle des femmes de Kolda yeneen li des ci wàllu enveloppe bi mu jëm ci subvention directe ndimbal boo xam ne dañ ko jagleel acteuru économie sociale et solidaire. madame le ministre ñëwam bi rassuré nañu rassuré nañu xam nañ ne aussi financement bi kontaan nañ ci parce que financement bi ñëw na ci heure am heure boo xam ne ñu ngi jaaxle. xamuñu naka la ñuy financer ñi nga xam ne seen activité euh, Covid bi impacté na ko xamuñu won ni ñu koy def tam bobu la financement bi ñew donc euh, ñu ngi len ci remercier